waaw salaamaaleykum di nuyu waa Sénégal yëpp avant toute chose dañuy remercier si seen initiative parce que tey am na ay télévision yu mag yu nekk fii Sénégal lu intéressé moom mooy chaque jour di sotti euh, safara ci taal bi. doo dégg moom ñu soutenir mais ça fait mal man damay indigné wu dans un premier temps tey ñun Sénégal lan moo tax ñun duñu jàppalante ñun suñu biir tey da ngay gis am ñoo xam ne def nañu procès bi. ba pare sax ñoom rendre nañ seen verdict ba pare te dara xewagul dem la bi ibi tay lan moo fi gën a tax ak au niveau Sénégal lay wax avant toute chose nous bu ñuy sport au Sénégal ñun judduwuñu woon nga dégg ay réforme de Diack tey moo jur ay euh, fusion ay jaraaf ak kii yooyu yëpp si li juddoog yooyu tey nga mouvement nawetaan bi si on parle de nawetaan encore une fois de plus tey mayo bi ma sol du tay lu mu def ci jaraaf tay jaraaf bu amé patrimoine c'est grâce à Lamine Diack tay la Jaraf de dama né man suma ma toogul dégguma waa jaraaf dégguma mouvement nawetaan bi dégguma les sénégalais ñuy wax ci le président Lamine Diack taxaw pour soutenir ko non franchement ça fait mal dama à man est-ce que devise bu Sénégal de woté ñun mérité nañ ko un peuple un but une fois bu ñuy wax non. est-ce que réellement dëgg su ñun dama naan ko nañ ko soppi def ko un peuple un but quelques fois moo parce que lan la da ngay gis sénégalais boo xamante ne tey ba Platini amee problème problème mu Platini bi da nga daan ñëw gis France yëpp seen presse lu ñu mën a sos sos lu ñu mën a wax wax mais ñoom ñëpp dañuy ñëw jàppale Platini ah. presse française bi à l'unanimité ñëpp dañuy ñëw jàppale euh, Platini ba ci seen président tey anamu da ngay gis non lieu te moom lan ngay gis anamu corruption lañ ko jàppee tey bu amee un corrupt euh, quelqu'un qu'on a corrompu mais y mais en russe bi la Lamine en sañu ñu ko parce que mom c'est un russe wuñu président Russie ñun suñu pendant ce temps suñu président croiser les bras ñom tok japp sen on est où là quoi se la vérité fi Sénégal chaque jour médecin après la mort le moy le Nous du Ndiaye Rose wax bu len bàyyi ba ma ngeen may tuddé ana dégg ñu ay grand théâtre ak Lamine Diak fi fi mérité monument Sénégal en tant que Sénégalais je me rappelle tay sénégalais yu bari comprendre ñu man bokon nañu en 2009 ñu doon xex jamono suñu stade Assane Diouf bi man booy doomu Medina la di dirigeant kusum mais ñun anamu kusum xandaalu stade Assane Diouf bi lañ doon euh, loolu entraîner Ablaye wad ñew ne da koy jaay ak chinois yak yoy ñun dañu bokon ci collectif Renaissance di ko xeex tey bañ naan Lamine Diack dafa génné pour xex Ablaye Wade c'est faux jigéenewul kii pour xex de ñun ñoo dem vers Lamine Diack exposé ko ko suñu problème mom ci walu bopam en tant que doomu rebeus en tant que doomu plateau mom ci walu bopam dafa ñew soutenir un mouvement bu nga xamante ni c'était noble 24000 quatre mille mètres carrés ñu war ko brader nonu jox ko ay chinois pour ñu taxaw ci sen ay euh je sais pas quoi lolu mo waralon xex bi mais Parlement Diack mu génné xaalis pour dem diko ko ay xex ak Ablaye Wade mooy Sénégal wooy axu Ablaye Wade moko dal axu li balaa ax axu kenn dalul kenn si c'était à refaire dañ koy défat stade bi ñu téye ni

Benno sigue Sénégal jamono jojo. anamu buñu bëggé élection 2009 euh, ñom seen walu bop duñu ñëw affaire stade bi mo leen Le président Lamine diak dañ koy togn nan ko ay dafa financé wu fi dara lu mu financé lan la doomu rebeus la ay doomu plateau ñëw taxaw pour bëgg a jot seen mais mu ñëw indi ñëw jappalé ñu ci président indi soutien am dafa lolu la ah bo presse bi jamono parce que presse instant bi lan la da ngay wax a suba ñu xëy binda bee ay boy nekk fi di ko ñàkkanteeg ni état bi ba jox seen stade président Macky bu ñëwee ne da koy delloo ba léegi tey anama gisuñu ko gars yi boo ci jugee loolu jaraaf ba Lamine Diack nekkee maire de Dakar mais patrimoine jaraaf bi ñuy namboon tey foofu la jugee ah. am na bëri jeunes yu bëri xamuñu ne Lamine Diack nekkoon na maire de nekkoon na maire de na maire de Dakar ba muy nekk maire de Dakar ana mu jaraaf tey li ñu jaraaf am yëpp mais kon tey jaraaf ñoom seen wàllu bopp président Cheikh Seck Lamine Diack ci boppam nekkoon na dirigeant am quoi. ak lu muy defal dañ koy remercier parce que mo ngi sonn ci jaraaf avant toute chose moog ñom Youssou Diallo keneen ak keneen kenn kuy ñëw Youssou mi doon wax ni léegi tay mom tay muy boy bo actif ci mbirum jaraaf. day am lu ko metté parce que lutax Lamine diak lu mu représenter ci jaraaf Lamine diak lu mu représenter ci au Sénégal UASU euh, réforme Lamine diak mouvement nawetaan mais pendant tout ce temps on ne parle nan sénégalais nan naan ñu dañuy xex corruption mais eh, Floyd bu ñuy wax ni américain bu ñu ray barké dem moo lan lañu wax dañu ne n'est-ce pas 20 dollars faux billet moo tax gars arrêté ko ba waji ji def ko lu mu koy def et pourtant monde entier bi yëpp dañu ñëw rallier ci cause am kooku kenn jugé wu quoi ah. mais Lamine diak di un vrai sénégalais lepp lu muy def comme ni ko Youssou waxé tay bu ñu ñëween stade Iba am piste d'athlétisme ba ci ay stade amitié am piste d'athlétisme tay bu ñuy wax athlétisme mondial mom ci walu bopam mo dafa am lu mu ci def même boudé luñ ko mëna ki mais def na pour son pays quoi kon Sénégal daf ko amel njëkkal on n'a pas le droit de sa terre sénégalais ak koo mënti doon ak fo mënti bokk ñun nañ ko jappalé ba paré comme nous français yi jàppale woon Platini bu ñu paré ñu door a lijjante la ca dess mais non non ñenn ñi toog fii non avant da ngay gis temps charlé Hebdo ñëpp ñëw taxaw je suis charlé bu la euh, bu ñu defee France ñëpp jël sen statut euh, profil statut je suis li je suis là je suis là je suis là pourquoi pas je suis Jack. pourquoi pas je suis Jack tay ñun Sénégal loolu war a wax ñun parfois dama naan ñun est-ce que ñun lu ñuy taxaw naan ay non ñun dañu xeeb suñu bopp quoi. dafa neexul ba neexul parfois yow doo xàmmee ñun ban Sénégal la ñu nekk loolu mooy ça fait non non non non xoolal ça fait mal. ça fait mal nee naa la tey muy opposition comme pouvoir man ci télé laay waxee 2009 man maa resoon jeunesse médinoise jeunesse médinoise bi resoon ci affaire stade Assane Diouf bi ba ñuy xeex affaire stade Assane Diouf bi ñoom ñii tey yor pouvoir bi nii ak ñu nekk ci opposition bi stade bi ñoroon na trop 2009 dañ doon wax bàyyi leen paa bi mu liggéey bàyyi leen paa bi mu liggéey amuñu solution ñëw fekk fait yi ñafe seen affaire stade ñu ñëw ànd ceex ñoom taxaw soutien boobu ñoom ñu soutien président Lamine fait ñëwee ñu fight, fight, fight. gouvernement a reculer tey bu Lamine Diak amee tey ñu ci yenn yi ñun suñu yoon nekko ci lale xam lu ñuy ban image yu ñuy jël mooy image yu positive bu mu defal Sénégal tey fi ngeen toog nii ki doon wax léegi turandoo wam la noonu la bëree turandoo man mii di wax ak yow rue neuf laa dëkk Lamine mooy Cissé bu doon football équipe nationale turandoo wam la jëm si yàlla passé ga Cissé ancien international te mu gaañu ci wàllu boppam ñun moo ñu yar ñun moo ñu yar kon ñun président Lamine Diack image bu rafet kese la ñu xam ci moom sénégalais yi bàyyi leen ci li ngeen def ngeen ñëw gars yi ngeen jàppale seen doom parce que kooku am na lu mu defal Sénégal ah. mais mais suñu xoolee euh, gis ni yenn yenn instance internationale yi nit ku ñuul diriger ko am problème est-ce que demain dina amati nit ku ñuul ku ñeme dem def yenn engagement pour mën a nekk au sommet du monde parce que Lamine Diack li mu diriger woon xam nañu ni c'était le sommet ci athlétisme est-ce que li ñu ko def ni tey kenn soutenir ko kenn jàppale ko est-ce que loolu dina motiver yeneen doomu Afrique di ñeme di jël yenn yenn engagement yi di dem di di diriger yenn instance fi ci international signe bi acharnement daf ci am bo bëggé dëgg-dëgg ma nga koy wax sank ci samay wax comment ça se fait Lamine Diack bu mu ñëw dafa redresser IAFA franchement mu am ay résultats yu positif yu ci nekk image bu rafet bobu lañu bëgg ternir qu'on se dise la vérité parce que pour eux un africain warul am yenn atteindre yenn instance suprême qu'on se dise la vérité non eh dañ nouvelle ordre mondial bi ñuy woote ñom nan nouvelle ordre mondial non kon nouvelle ordre mondial bo leen gisé kérok lu xew États-Unis xew ko ci yeneen dëkk yi non ngeen xam kon instant bi Afrique bu ñu yeewul léegi dootuñu ko yewu dañu wara revendiquer ñun tay ñun ñun ñun africain ñu xam ñun ñoy kan bañu ñi taxaw nek des bini wi wi bon président africain nga dégg mo wax ci affaire lu xew États-Unis jamono ji dañuy nopp parce qu'ils ont les mains liées Charlie Hebdo amé ku nek da nga jog ñom ñepp dañu déplacé jël cet avion dem ñaata yoon lañ fi ray ay journaliste ak keneen ak keneen te doo leen dégg ñu wax non bu ñu nëbbantee amul fii li ñuy kii gars yi lan la Sénégal ils sont pas plus sénégalais que nous mais le problème lan mooy ne dama ne comme que ñoom dañ ko accusé de corruption mais où est le corrupteur russe bi ñuy tudd mais ñemewuñu russe ah hein? non Poutine moom doo laal doo laal doo doo laal doo laal doomam pendant ce temps ñu da nga dégg ñu suñu président yi wax ana suñu président nañu génn au moins soutenir leen soutien bobu lañu soxla na sénégalais yi génn ñu wax waxuñu kenn gennal toj wala nga yaax wala nga def mais ku ci nekk nu ngeen doon jëlee seen statut yeeg seen kii yi di ci def ay profil je suis diw je suis diw je suis diw non seen doom tamit mérité na ko ah. mérité na ko loolu lañ leen di woon nag jug leen ngeen jàppale ko bu ñu xool sax pour le moment lañ koy tuumaal parce que tant que jugé wuñu ko tu es présumé innocent instant bu mu nekkee innocent nii instant bi la ñu war a ñun ñëpp africain wa comme sénégalais ñu soutenir ko parce que lépp comme ni ko tuddee jéem a xeex comme ëllëg ak si biir benn africain dootul aspirer à dem dem ci yenn sommet yi dañuy jéem a kase parce que kii réussir na ko rafet na ñu ne non non non lañ ñu jéem la ñoom ñëpp ñu ñu teel leen dakk comme ni ko yenn président di waxee na président yi arrêté lu ñuy def di làqatu ci gannaaw ay président européen wala dana nax leneen fulla gu Poutine am fulla gu ñoom euh, Trump am fulla gu keneen ak keneen ba ay ñoom euh, président français barke de mondiaay ci ñoom Platini non ñu tamit suñu président nañu ñëw am fulla gu raw googu défendre seen doom quoi bu ñu bàyyi ba affaire yu wees ñu ñëw naan dañuy tuddee ay stade ak di ko tuddee ay leneen ak leneen job bi fii la jàppale bi heure bii la bu woon ne sinon lu wees amatul sens amatul benn solo. Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité.